internet yi safoo seneinfo point net ak seneinfo international ñu ngi leen di fa fas yéene leen defal tënkub xibaaru tey euh, samedi di 17 avril 2021 dañ koy tàmbaleeg euh, xibaaru biir réew mi. Université Cheikh Anta Diop nag njort nañ ne jàmm dina fa delluwaat gannaaw kon euh, violence yooyu nga xam ne nemmeeku nañ fa fan yi ñu weesu démb nag kii di directeur bu COUD ak représentant étudiants yi daje nañ ci ab waxtaan gannaaw loolu tam am na luñ tënk étudiants yi daal engagé wu nañ ne ñoom. ci wàllum codification yi maanaam ni ñuy joxee néeg yi daal euh, muy ñaari parti yëpp kon engagé wu nañ ne euh, ni ñuy joxee ci néeg yi daal excellence lay doon maanaam critères yi nga xam ne ci la ñuy choisir pour joxe néeg yi maanaam codification pour étudiants yi ci excellence ak mérite lañ koy tënk étudiants itam ñoom nee nañ it dinañ euh, dugal seen loxo bu baax a baax ci lii di processus processus assainissement bu campus social yi nee nañ itam dinañ identifier ba dàq képp koo xam ne nii nekkul étudiant ndax d'habitude foofu université Anta Diop dañ fay nemmeeku ñoo xam ne dañ fay nekk sax te duñ doon ay étudiant étudiants yi nee nañ kon it dinañ xeex bépp forme de violence kii directeur ba tam nee na nee na kon dina xalaat bu baax a baax ci laaj bi nga xam ne étudiants yi wax nañ ko ngir daal ñu dakkal ñu dakkal kon décision bi ñu jëloon ne dañuy suspendre lii di amicale yi étudiants yi euh, ñaan nañ kii directeur ba ngir ñu teg loolu ci suuf édition 2021 bu festival salaam samedi tey gi lay ubbi euh, tey it kon dinañ ko wéyal ba ba weeru koor bi kon di jeex euh, édition festival salaam nag 2015 la ko Youssou nduur lancé woon moom sax mu ngi inspiré woon ci lii di festival musique festival de musiques sacrées bu Fès ca Maroc la inspiré wu kon ba amal lii di festival salaam festival boobu nag euh, li taxit Youssou nduur taxawal ko mooy permettre artistes yi suñu sénégal sénégalais surtout ñi nga xam ne. kon ñii di woykatu diine la comme woykat yi nga xam ne daal dañuy woy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom la pour permettre leen kon ñu gën a am fu ñuy exprimé woo fu ñuy woyee kon moo taxoon mu amale bile festival bu ñu paree Sénégal dañuy dem ci Afrique ci ay ci ci fii ci Afrique nag kon ci géeju géej gi nga xam ne mooy géeju Tunisie lu toll ci ñaar fukk ci ay migrants lu toll kon ci ay ñaar fukk ñoo xam ne daal dañoo jëloon dañoo jëloon mbëkk mi ngir bëgg a dem fële ca Europe ñoom kon dañoo loru ci géej gi gannaaw bi nga xam ne kon lii di seen gaal gi eh, dafa suux am na it seet si ñoom yoo xam ne eh, dañoo réer kon dañoo porté disparu bu ñu sukkandikoo ki suñuy naataango yu VOA Afrique conseil de sécurité eh, bu loon yi nag ñoom nag rafetlu nañ bu baax a baax a baax effort yi nga xam ne kon euh, waa Libi ñu ngi koy def ngir delloo si jàmm euh, foofule ca dëkk ba euh, ci kaw loolu sax kon ñii di conseil bi daje woon nañ kon ñoom daje woon nañ ñu bëri daje woon nañ daal ba approuvé nañ kon bu baax a baax a baax kon li nga xam ne mooy effort yi nga xam ne kon waa Libi ñu ngi koy def ngir daal jàmm bi si fa depuis bi nga xamee ne comme. depuis bi nga xamee ne euh, amal nañ fa ab accord bu cessez euh, le fa ci octobre diplomatique kon ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax euh, loolu la di jàmm ji nga xam ne delsi na fa xam ngeen ne Libi moom fukki at depuis fukki at Libi kon ay jàmmarloo dafay am ay xeex depuis daal bi bi fa Xadafi jógee ba léegi jàmm amatu fa kon nag lii di conseil de sécurité la ni rafetlu nañ kon jàmm ji nga xam ne fi mu nekk nii mu ngay foofu le ca Libi. xibaaru bitim réew nag euh, dañ koy tàmbaleeg euh, fële ca Angleterre muy Royaume-Uni nga xam ne kon bésub tey bii ci lañu war a defal lii di kon dëj dëj ki nga xam ne moom mooy Prince Philip ki nekkoon kon boroom këru buur ba di reine Elizabeth kon bésub tey bii la ñuy amal ay dëjëm ba kon tey funérailles tey lañ koy amal coronavirus bi nag tax na sax ba euh, dañ koy def daal ci lu yemamaay kon ci benn cérémonie bu yemamaay lay doon jàngoro coronavirus bi kon Euh, moo ko waral premier secretaire bu parti communiste cubain di rawul Castro moom nag euh, démb ci àjjuma ji gannaaw bi nga xam ne mu ngi doon def dernier discours am ndax fi mu nekk nii sax moom dafa waral dafa waral jéb dafa war a jébbal lenge kii di président Miguel Diaz Canel gannaaw bi nga xam ne kon démb mu ngi doon def dernier discours am daal dafa woote daal. Euh, ab jaloog nee na dialogue boo xam ne kon dialogue boo xam ne dañ koy tënk nag ci respect moom la woote ci diggante Cuba ak ñii di waa États-Unis xibaar bitim réew dañ koy jeexalee ki Russie bi nga xam ne daal ñoom dañoo kon amal ay sanction sanction yoo xam ne kon ci ay responsable américain lañ ko amal dàq lu toll kon ci fukki diplomate yoo xam ne ni ay diplomate américain lañ dañ leen dàq ba pare am tam ay interdiction maanaam tere ay responsable américain tam ñu tere leen ñu dugg foofu ci seenu dëkk wante yi nag donte donte jël nañ décision yi ni mel waa Russie nee nañ loolu dàquñu ab dialogue ci diggante eh, kii di Joe Biden ak Vladimir Poutine dañ koy tëjee xibaar sport eh, promoteur eh, de lutte bi di Gaston Mbengue moom nag taxawal na lii di combat Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 nga xam ne sax ñu bari ci amateur yi ak euh, supporters yi kon dañ ko doon laaj ci nga xam ne Gaston Mbengue taxal taxawal na ko démb bu ñu sukkandikoo nag ki suñuy naataango yu l'observateur nee nañ sax Balla Gaye 2 moom cachet toll na ci 150 millions de francs CFA lii la ñu tey ci xibaar rafetlu seen teewlu leen jox daje ëllëg jaa jëf.